remercier bu baax a baax ci sa oyof ak ni ngay éclairer suñu lanterne chaque jeudi boo toogee ci jotaay bi donc ñu commencé waxtaan wi ak euh, décision bi nga xam ne nii tukkee na fële ca conseil des ministres démb euh, le ah. directeur de l'office national de l'assainissement du Sénégal docteur Cheikh Dieng ñu taboon ko fa ca bopp ba mu remplacer Mamour Diallo ñaari weer ci ginnaaw ñu jëlee ko fa boobu décision nan nga ko gisee bon en fait euh, démb bi ma liiree communiqué conseil des ministre bi ba egsi ci dama taxaw ma bu baax et j'ai bien vu que monsieur Seyni Dieng remplace monsieur docteur Cheikh Dieng à la tête de l'ONAS mu nekk décision bu jaaxal Sénégalais yu bëri parce que il aura fait exactement cent jours bi ñu ko nommé à la tête de l'ONAS parce que le 24 euh, conseil des ministres bu 24 avril 2024 euh, bi ci lañ ko nommé donc soo ko doon xayma presque 100 jours lay def donc moom il n'a même pas eu peut-être le temps sax jëmmaleeru la yenn yi beaucoup de Sénégal nag se sont posé la question parce que lan moo waral ki nga xamante ne presque trois mois après ñu limogé ko ñun nag biñ ci gëstoo parce que bon y beaucoup de Sénégalais ñu bëri wax nañ par rapport à l'affaire des je ne sais pas 60 milliards yi ñu Ousmane ko doon wax fale bi mu demee euh, Saint-Louis mais man bi ma ci gëstoo ce que j'ai eu comme information quand même c'est autre chose et ça montre que les autorités actuelles ñoom il euh, mettent en pratique ce qu'ils appellent le jub jubal jubanti parce que cette notion la dafa bàyyiwul kenn ñi nga xamante ne ñoo farak Pastef nekk ci gouvernement bi ñi nga xam ne c'est des alliés ñi nga xam ne aussi c'est des personnalités de la société civile nekk ci gouvernement bi ça veut que dafa nekk benn credo boo xam ne ñëpp dañu war a sàmmonte ak moom ñun nag ci li ñu gis moo di il y a eu des manquements dans certaines euh, passations de marché parce qu'il paraît qu'il y a des entreprises à qui on a confié des marchés et qui le profil quand qui n'ont pas l'expertise en la matière donc ce qui dire que passation yooyu jaarul jaarul ci yoon en plus de ça aussi on nous aurait dit qu'il y a ci marché yooyu donc mu nekk un ensemble peut-être de faits yoo xamante ni loo xam ne dañ ko doon xeex fii su fekkee ne dafa am ay pratiques yoo xam ne dañ ko doon xeex tey pratiques yooyu bëgg a dellusiwaat je crois que Sénégal yi nga xamante ne ñoom ñoo war pour rupture changement boobu dañuy am jaaxle parce qu'ils vont se dire que il n'y a pas eu rupture il n'y a pas eu de changement il n'y a pas eu d'alternative parce que les mêmes pratiques de l'ancien régime ou bien des régimes passés sont en train d'être reconduites et je crois que pour l'exemple docteur Chadien vraiment euh, en a été la première victime c'est vrai que man c'est mon ami j'aurais aimé j'aurais même préféré et vraiment c'est avec je m'exprime sur le sujet parce que bien ku ma xam xam ko mais ñun ci suñuy information voilà là où nous en sommes il est vrai que j'ai essayé de le joindre ça mais je n'ai pas pu l'avoir mais de la part vraiment d'une autorité voilà ce qu'on nous a dit que principalement c'est ça qui est à la base même du limogeage de monsieur Cheikh Dieng loolu aussi je crois que dafa nekk un avertissement pour l'ensemble des membres yi nga xam ne ñu ngi ci biir gouvernement bi et ceux qui sont aussi au niveau de certaines direction pour wax leen ne tout simplement cette notion de jubal bàyyiwul kenn donc je crois que ñi nga xamante ne tey ñoom lañ jox des postes de responsabilité ñuy gérer les deniers publics war nañu sàmmanteeg bu baax l'orthodoxie bi nga xamante ne ak transparence bi nga xamante ne moom moo war régir la gestion des deniers publics parce que loolu mooy le prince la principale cheville euh, en tout cas talon d'Achille Sénégal en tout cas dans la gestion des fonds publics mooy surtout cette histoire de passation de marché c'est-à-dire euh, aussi le détournement des fonds publics et malheureusement pratique yooyu moom moo gangréné woon surtout la l'ancien régime xam nga soo xoolee la fois passée j'ai même euh, écrit on a publié un article sur le piment où en réalité presque foofu aussi c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi dans la mesure où avec ce qu'on appelle le secret défense les gens se permettent de faire des passations de marché de gré à gré et de faire des surfacturations quand même démentielles je crois que là aussi les autorités doivent se pencher surtout aussi euh, sur euh, en tout cas euh, le PUMA et d'autres structures qui sont là ay Promoville ay PUDC il faut ñu gëstu xool réellement ce qui est en train de se faire mais revenant à monsieur Cheikh Dieng donc l'actuel gouvernement moom il a été vraiment la première en tout cas victime de sa jub-jubal jubante c'est vrai que c'est dur mais li ñuy wax dura lex sed lex la loi est dure mais c'est la loi donc je crois ku ci nekk rek li nga xamante ne moom nga war a sàmmoonteel moo di faire de sorte que da ngay jubal pour Sénégalais yi mën a am conviction que ne changement am na ci réew mi léegi mais su fekkente ne son les mêmes pratiques qui son en train d'être reconduites ça pose un problème et je crois que à l'endroit de l'ensemble de directeurs yi nga xam ne des directeurs généraux il faut ñu xool staff yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de la cellule des passations de marché aussi c'est extrêmement important parce que il ne sert rien de changer un directeur alors que ñi nga xam ne ossature bi ñi xamante ne ñoom presque mën naa wax ne ñooy colonne vertébrale direction yi kenn changé wu leen parce que c' des gens du système qui sont toujours dans les directions bu fekkee ne da nga bopp bi te changé woo par exemple tànk yi changé woo loxo yi toujours le système est la donc il faut que ñoom seen wàllu bopp aussi au niveau de la solution euh, au niveau de des cellules de passation de marché ñu gëstuwaat xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk parce que yemul foofu man am na yeneen structure yoo xam ne xam naa ba léegi yenn pratiques yi nga xam ne ñu ngi fay continuer di am te ministres yi wala yenn directeurs yi souvent dañuy nekk ci yenn position yoo xam ne yenn yi sax duñ ci mën a teg seen bët mais bés bu yëf yi feeñee ñoom finalement c'est eux qui vont payer les pots cassés donc directement ils ne ils peuvent ne pas être impliqués mais su yëf yi su feeñee seen kaw la jëm parce que ñoom poste de responsabilité ñoom lañ ko jox c'est à de veiller à ce lépp jaar yoon malheureusement dañuy changer direction yi mais ci biir fonctionnement bi c'est-à-dire ci biir équipe yi da xool ne ba léegi les mêmes têtes quand même sont reconnues et ces mêmes têtes là ils ne font que perpétuer malheureusement les anciennes pratiques peu orthodoxes de, de, du, du régime ancien nga euh, defal ñu quand ay euh, révélation ci limogeage boobu parce que lu ne dégg nañ ko ci am na ñu ne dafa recruter ay militants mi nga xam ne ni amuñu compétence dugal leen ONAS ak yeneen am ñu ne ndoxu inondation yi ñoo ko yóbbaale et cetera cetera nga ne. affaire waaw li ma ci man de liñ ma li ma ci gëstu dem mhm. te ki moo ko wax c'est une haute autorité et je sais kooku. Mhm. li muy wax lu mu xam la. Mhm. te ci autorité yi la bokk il est au de l'État. loolu la ma jox comme information. donc mbir mi mbirum euh, marché la. marché yi jubluwaay yi lan la woon. montant yi xam nga euh, bon les montants n'ont pas été précisés. Mhm. mais xam nga jamono yi ñu ngi presque ci inondation mhm. inonda bon ci waajal ay inondation éventuellement. Mhm. parce que nawet bi day dugg si donc. ONAS dafa nekk benn euh, direction boo xam ni dafa stratégique pour la lutte contre les inondations donc am na ay matukaay yoo xam ne war nañ ko mën a jël yenn marché yi nga xam ne dañ ko jël certainement c'est pour la lutte contre en tout cas pour prévenir les inondations mais entreprise yi nga xamante ne ñoom lañ jox marché yi d'abord ni ñu leen joxee marché yi c'est c'est pas c'est peu c'est pas très catholique en plus de ça aussi on loolu boobu dama ko fàttewoon wax le taux d'exécution même de ces marchés là c'est un faible pourcentage parce que su fekkente ne da am délai boo xam moom lañ la jox pour nga war ma ci exécuter marché parce que fi ñu toll nii fast track lañ war a def mais ñu gis ne yëf yi mi ngi sooxee on s'est rendu compte qu'en réalité li tax marché yooyu affaire bi yeex c'est parce que ñu ngi ko jox ñoom ils n'ont pas le profil tout simplement de l'emploi c'est-à-dire ils pas l'expérience en la matière et puis ni ñu ko joxee aussi quand même ça défie les règles de de de la bonne gouvernance en plus de ça gis nañ ne ci biir loolu dafa am ay surfacturation donc voilà un ensemble de faits boo xamante ni tey loolu je crois que loolu fu ñu ko mën a gis danañ ci def benn taxaw seetlu et in fine ñoom bu ñu defee seen gëstu ba xam ne tel et tel sont impliqués ah, finalement on prend la décision mm-hmm. et la décision malheureusement c'est le limogeage de chacun mu doon mesure bi nga xam ne nii bëriwul luñ koy gis Sénégal fal la deux mois dàq la affaire marché jékki-jékki ñu la comme ça peut-être un avertissement. waaw oui moom moom moom laa cest à moom laa moo tax ma ne pour l'exemple en réalité li ñu naan la loi est dure mais c'est la loi. metti na ci peut-être ci kiñ ko def. mais aussi dafa nekk loo xamante ni lu baax la dans la mesure où. c'est pour dire tout simplement à d'autres qui gèrent des directions. que ne yëf yi bàyyiwu fi kenn. que mbir mi c'est pas un problème de timing. c'est pas parce que def naa fi une semaine deux semaines trois semaines bu fekkee ne da nga fi def une semaine def njombe ñu teggi la bu fekkee ne def un mois def njombe ñu teggi la bu fekkee ne def nga fi un an deux ne def nga fi ay njombe ñu teggi la bu fekkee ne aussi def nga fi benn durée bi te la benn njombe aussi te yaa ngi def se résultat yi nga xamante ne moo taxoon ñu teg la à la tête de cette direction donc nit ñi duñu gis benn intérêt pour ñu jëlee la foofu donc les gens les nouvelles la recherche tout simplement de résultats mais de résultats aussi avec comme la jub jubal jubanti c'est-à-dire que il faut aussi nit ñu jubal ci li nga xamante ne moom la ñuy gérer quand même les deniers publique loolu c'est important gis principal problème Sénégal mooy jubal ci lépp lu nga xam moom la ñuy def li fi am yëpp comme problème jubadi rek la jubadi jubadi nag mooy lan mooy li nga xamante ne moom lañ teg comme ay règles de passation de marché comme ay règles de gestion des deniers publics nit ñi dañ koy jël tegi ko teg fële di def li leen neex di def leen neex gis nga marché de gré à gré yi dafay yàq dëkk bi. marché yaa ma neex ma neex yi dafa yàq dëkk bi. Mhm. da ngay gis l' ancien régime da nga naan gis ñeen ñoo xam ne sax pour ñu war a mën a def ay gré à gré parce que am na ay seuil yoo xam ne chaque fois dañ naan la bu dee seuil bi war nga mën a def li ñaan Euh, euh, DRP mais su fekkente ne jiggi na foofu forcément il faut nga def appel d'offre donc nit ñi da nga daan gis ñu jël benn marché dagg ko dagg ko dagg ko dagg ko dagg dagg ko yooyu yëpp pour lan la tout simplement pour mën a fexe ba def ko des marchés cest def entente directe te loolu ce n'est pas bien bu fekkente ne yow dañ la jox loo xamante ni wóor na askan bi moo ko moom cest à ko war a doxal ni nga xamante ne moom la ko askan bi bëggee te askanu Sénégal li ñu bëgg mooy dafa war a am rupture ci ni nga xamante ne moom la ñuy sàmm alalu alalu réew mi alalu réew mi nag comme que ñëpp a ko bokk da ko war a sàmm sàmm bu mucc ayib mais su fekkente ne ñenn ñi dañu jàpp ne. alal réew mi parce que dafa am benn pàcc boo xam ñoom dañ ko ko dénk ñu foog ne loolu ñu leen dénk am nañ sañ-sañ ñoom war ci mën a tibb def seen poste wala war nañ ci mën a def loo xamante ni finalement du jaar ci yoon su boobaa dama ne njuumte la te ñi nga xamante ne ñoom la fi yàlla teg tey muy les nouvelles autorités Diomaye Sonko ak vraiment toutes les eh, ñi ànd ak ñoom li ñuy wax comme principe mooy nañu jubal nañ jubanti jubal jubanti loolu je crois que c'est clair mm-hmm. bu fekk nañ la dénk jàpp nañ ne am nga compétence pour def ko léegi li des nag mooy il faut fair ça vraiment dans les règles de la transparence tout ce qui a trait à la nébulosité dans la gestion des fonds jëlal nga teg fa mais su fekkee nag defuloo ko quelle que soit la durée bi nga xam ne moom nga am ci direction boobu su boobaa yat bi dina dal ci kaw et que cela aussi puisse servir de leçon aux autres parce que ñeneen dañ ci war a am njàngat pour wax ne mbir mi kat nekkate fi kenn parce que tey boo doon xool en terme de relation politique même humaine sax entre Cheikh Dieng ak les nouvelles autorités mais c'est de très bonnes relations c'est de très bonnes relations c'est quelqu'un qui a participé vraiment à l'alternance xeex na parce que il a son parti je crois mooy euh, il a créé un nouveau parti ah quatre partem bi vraiment dafa impliqué woon dans la lutte pour l'alternance mais cela aussi du immunité c'est-à-dire du benn gage de en tout cas garantie pour que bu fekkee ne def nga dara ñu war la fa mun bàyyi déedéet du affaire u PDS du affaire u APR du affaire kenn l'affaire du peuple sénégalais képp kuñ ci jox direction jàppal ne tu pour le peuple sénégalais la ñuy xaar ci yow su fekkee ne defuloo ko dootuñu xool sa posture politique dootuñu xool sa casquette politique dootuñu xool sa chapelle politique li ñuy xool mooy y a un citoyen sénégalais ak qui on avait confié une direction te lañ nga doon xaar ci moom finalement defuñu ko su boobaa nag dinañ la fa teggi et à juste raison aussi teel a dal est-ce que duñ ko mën a méngaleeg précipitation li nga xam ne ni amaana mun na jur ay inconvénients parce que peut-être sur la base de soupçons yi nga xam ne ni peut-être ñu koy faral di yëkki say noonu la ci biir boîte bi et cetera et cetera est-ce que du ñu demee précipitation bu yat bi di gaaw a dal nii. non Mbissane en réalité c'est pas de la précipitation. Mm-hmm. parce que xam nga aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay dénk. Mm-hmm. bu ñu lay dénk dafa am ci lu ñuy jaar. Mm-hmm. lu ñuy xool. lu ñuy gëstu ba ne yow mi war nañ la mën a dénk lii bu ñu la fa tegee aussi ñu gis ne am na ay pratiques peu orthodoxes yoo xam ni pour ñoom ça va à l'antipode de li tax ñu teg la fa mais du ñu dem ci ay soupçons ça du ñu njort ne rek kii nangam wala nit ñëw ne kii de li mu fi def baaxul déedéet non dañ koy def ci lu leer ba pare motiver ko yow mi nga xamante ne yow mi nga xamante ne tu es incriminé ce qui est sûr et certain mooy dinañ ci toog waxtaan ci yow dinañ ci waxtaan ak yow danañ la laaj ba nga wax ba ñu gëstu ci xam ne la nga doon def méngool ak ñoom li nga xamante ne ñoom moom la ñu sant su boobaa nag comme que la loi donne au président vraiment toute la latitude de nommer aux emplois civils et militaires ba pare ku neex mën na ko nommer bu jàppee ni kii doyatuma fii parce que li tax ma indi ko fii gis naa ne matewu ko am na droit mu jëlee ko fa indi keneen kañ fay indi aussi bu ñëwee defaat la même chose quelle que soit la durée suñ ko gisee gëstu ci saytu ko bu baax aussi moom dañ koy teggi donc mbir mi du précipitation c'est pas un problème de durée mhm. nit mën nga ko fal un mois après nga gis ne mu ngi def ay pratiques yoo xam ni jaaduwul nga jële nga jëlee ko fa donc ce n'est pas de la précipitation d'autant plus que dem mhm. mu ne woon centième jour boo xamante ni dañ ko nommé à la tête de cette direction cent jours xam nga cent jours yooyu déjà ci lañ doon évaluer <laughs> les euh, en de façon partielle ou bien de façon arbitraire sax ce que le président a déjà fait cent jours donc mën naa wax nekk cent jours aussi jaadu na pour ñu war a mën a xool li nga xamante ne nit def na ko à la direction en terme pas en de résultat mais surtout ndax yëf yi mu ngi jaar yoon parce que pour l'instant du ay résultat lañ ko doon laaj mais dañu xool ne peut-être lañ doon xaar pour mu jaar yoon jaarul yoon peut-être aussi lañ doon xaar ci entreprise yi mm-hmm. en termes de durée d'exécution des des des, des mm-hmm. ko aussi mm-hmm. te je crois que on est un peu aussi dans l'urgence surtout par rapport à la prévention des inondations donc je crois que à juste raison ñi nga xam ne ñoo jël décision yi certainement que ils l'ont mûri mais je ne suis pas en tout cas d'accord le fait de dire que bon les gens sont allés précipitation non je ne pas mm-hmm. mais aussi la forme comme nu ko yenn ci suñuy naataango bindee nee nañu yat bi ba muy dal mu ngi ko fekkoon sur le terrain à Touba mu nekk ci liggéey bi donc ba mais non en en la du ci du ci dara xam nga ki nga xamante ne da nga da ngay tàggali ko ak moom mm-hmm. même su fekkente ne daf ko fekkoon ci liggéey mm-hmm. mais il reçoit la nouvelle parce c'est pas parce qu'on va lui dire que yow dañ lay jëlee fii. que donc tu ne vas pas non c'est-à-dire da ngay lay fekk sa liggéey bu fekkee ne tu es sur le terrain da fekk mu leer na bés bu ñu la fa jëlee nga ne fekk nañ ma may liggéey mais ci laa jot nouvelle bi loolu je crois que amul c'est-à-dire y a pas boo xam mooy lay wax ne dañ la war a prévenir dañ la war a wax et cetera. gis nañ fi ministre boo xam ne Màkka le feu Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm. biñ koy teggi boobu ma ngoon Màkka Màkka lañ lañ yëgee ne Macky Sall dégommé na ko. pourtant peut-être ñenn ñi am nañu wax na naqarlu parce que mu ngoon màkk ak et cetera doon accompagner pèlerins yi mais président bi constitution moo ko may. ku ko neex mu fal ku ko neex mu folli. le ah, président ak quel que soit l'endroit où tu te trouves nag. quel soit l'endroit. le président Macky Sall dissoudre na. tas na gouvernement en pleine séance plénière à l'Assemblée nationale. jeex na donc mu noonu loi may na loi may na ko mhm. su fekkonte ne c'était illégal su boobaa mën nañ ne li mu def du dëgg du yoon. Mhm. ñenn yi nag peut-être pour des raisons morales. Mhm. rafet na rafetul bon saa moom c'est de considération subjectives. rafet na rafetul jaadu na jaadul et cetera loolu moom c'est des jugements de valeur. mais li am solo mooy la ngay def rek na nga ko teg ci loi. su fekkee ne loi may na la ko. mën nga ko def tant que may na la ko léegi nag li ci des moom c'est des considérations subjectives euh, leneen nga xam ne ni aussi euh, yëngal na ay bés bi muy euh, la